étrangère ñoom nag dañ leen arrêté fee ca aéroport international Charles de Gaulle de Paris en possession de 1000 euros soit 65,5 millions de francs CFA ñoom nag xaalis boobu waa douane jël mu nga cay loxoy douanier bu France Myriam 1000 euros soit de francs CFA on continue avec un mari qui drague sa femme et obtient rendez-vous à l'hôtel moom nag jabar ji dafa créé woon deux comptes à savoir Facebook et WhatsApp jëkkër ji daal di yëg loolu moom tam daal di créé benn compte Facebook envoyé ko euh, li nga xam ne moo di invitation jabar ji daal di nangu mais avant muy dem ci euh, rencontre bi ci hôtel bi doon nañu yónnante ay photo ay photo nu sa femme moo ko doon def donc bi ñu demee ba ci hôtel bi ci la femme bi daal di xam ne jëkkëram la amaloon affaire donc ñuy laajte rek bu doon yéen naka ngeen ni euh, procédé concernant votre femme On enchaîne toujours avec euh, une fille qui a volé les <coughs> bijoux de sa femme. Oui, Ndim Tu n'as rien dit. Non, on enchaîne avec une fille. On koy fase <laughs> ok libre nga si on enchaîne avec une fille qui a volé les bijoux de sa femme moom nag dafa doon bëgganteeg benn waay mu ñëwoon ñaan si ko parents mi bañ parce que waa ji tolloo ñu niveau social c'est-à-dire le gars fauché donc bi ñu bañee ci la fii bi daal di décidé sàcc li nga xam ne moo di chaîne yaayam bu toll ci 1 million de francs CFA ñu daal di dem fi nga xam ne moo di Saly waaye yaay dafa demoon voyage ci Espagne ba mu ñibbisee nag ci la remarqué li nga xamante ne moo di vol bi mu xam ne doom ji la bi mu ko menacé ci la ko doom ji xamalee ni moom moo daal di jël yooyu or mais ci noonu ba fii ñuy wax ak yee xale bu jigéen bi dafa daal di disparaître escroquerie Mariam Tandian a fait face hier au juge moom nag dafa def li nga xam ne moo di usurpation de d'identité c'est-à-dire dafa utiliser benn photo boo xam ne c'est une dame qui porte une robe d'avocate euh, muy escroquer ñi nga xamante ne euh, ñooy def ay ventes en ligne donc ci noonu lay récupérer ay xaalis via benn euh, service de retrait di leen jox rendez-vous fi nga xam ne moo di Magic Land ou ci tribunal bi ci boppam pour di jël li nga xam ne moo di seeni avec elle. on continue euh, yëmbal Malika de malfrats ils sont au nombre de dix ñoom nag ñoo sàcc li nga xam ne moo di benn pick-up de couleur blanche immatriculé 24 6 29 ñu ngi koy seet ba léegi ñoom nag dañoo dem ci fi nga xam ne moo di benn pharmacie bu nekk fee ca yëmbal daal di fay ligoté ki nga xamante ne moo di agent ba laata ñuy dugg di braqué li nga xamante ne moo di pharmacie bi. Guy et compagnie font tomber le commissaire Ndour Mamadou Ndour commissaire central de Dakar El Hadji Cheikh commissaire de AIBD. moo ko moo ko remplacé ci boobu poste moo ko remplacé waaw. d'accord. toujours Assane Diouf qui fait le buzz moom nag bi pas Sonko la daal dal nee na ko bu soobee yàlla doo mës a nekk président de la République du Sénégal. Hmm. Max Mbargane qui est très heureux de remplacer feu Pape Dia moom nag nee c'est une continuité pour.